dem di seeti buru àdduna daal dafa bari dafa bari ay yàqu-yàqu ndax boo ko defee keneen roy la ca defe ne ayut day tax buri àdduna yi ñeme yàlla gën a bari ndax bu fekkoon ne kenn du leen seet si ñëpp di leen woon gannaaw kon xëy na ñu bàyyi tooñ gi waaye nag boo demee sa moroom dem rek day tax buri àdduna yi dëng ñeme tooñ baadoole yi gën a bari loolu al loolu al yi daal yi wax nee na àtte nag moom mat naa moyu bi la bëggee def ab àttekat say boo rek jéem a bañ am na sax ku ci joxewet ak laa bi ne del fàttaliku bis bu yàlla dekkale doomi aadama yi taxawal leen ci benn béréb kenn ku ne mu wéetal yow ba mel ne yow dong la ma sàkk mës sàkk keneen ne bis boobu dee ko fàttaliku ba di moytu dugg ci mbirum àtte ak lu ko nuru del fàttaliku addis bi yonante bi waxoon ci mbirum àttekat yi ne woon ñett lañ ñaar ña dañu dem sawara kenn ka rek kay dem àjjana kay dem àjjana nag mooy ka xam la war a àtte mu àtte ko ngir yàlla li ci des nag mooy ki nga xam ne daa xam lay dëgg te àttewu ko ak ka nga xam ne daa xamul la muy àtte àtte ci ko réer rek ñooy ñaar ñooy dem sawara nga xam dëgg rek te àtte ko nag moom rek kay dem àjjana mu ne nag del fàttaliku addis boobu tey ñaan yàlla musal la ci dugg ci mbirum àtte bu ñu bëggoon a fal lu mel ni misra li muy réeréy mbaa Baxdaad nga nekk fa àttekat du nangu nee na buñ ma laajoon kan moo gën a dofe ci nit ñi ma joxoñ saa baaraam ki nangoo falu di àttekat ne leen kee mooy dof bi moo gën a dofe ci nit ñi nee na boo déggee nag ñuy ŋàññi mbirum àtte xamal ne kat àtte di ca dëngal ñàkk aw ci yoon rek moom la ñuy wax waaye àtte jaamu yàlla yi ci kaw yoon na yàlla bëgg moom mu ngi bokk ci topp yàlla yi gën a màgg bokk ci jaamu yàlla yi ëpp tuyaaba waaye nag gis kuy àtte ba noppi nag sàmmoonteeg loolu nee na moo jafe lool ndax li ëpp ci suñu àttekatu jamono ji moom daanaka dañuy mel ne àttekatu saddoom boobee nga xam ne ñu bari déggoo nañ ay mbirum ay wax ne li ëpp ci àttekat jamono ji dañuy mel ne àttekatu sa doom boobee nga xam ne doyoon na waar ndax li ñu la nettali bokkoon na ci ak jengam ak ku ñàkk àtte dëgg ndax benn waay dafa romboon foofu ci sa doom mook soxnaam ñu war ci am mbaam bay rombee waa dëkk ba waa dëkk ba daldi dóoru mbaam ma ba dagg geen ba ak ñaar nopp ña na mbaam ma tàjjantoo mooy na mbaam ma bërbëree nag soxna sa waran ci kaw daldi daanu te fekkal mu ëmb ëmb ba daldi yàqu ñu dem ci àttekat wax ko ko mu ne jëkkër ji da ngay jël sa soxna si jox ko nit ñi ñu joteeg moom bu mu ëmb mu ëmb woon ñu door la koo delloo su ko defee nga jox leen mbaam mi ñu ko liggéeyee di ko liggéeyee ba geen bi saxaat nopp yi saxaat ñu door la koo delloo noonu rek la ko àttee mu ne nee nañu waaja dafa ñaan yàlla mu teg musiba ci kaw gaa yi niñ ko tooñe muy waa dëkk boobu yàlla wax suuf mu modd leen maanaam yàlla wax suuf mu wann leen xam ne suuf dafa wann waa dëkk ba bu bàyyiwu ca kenn kenn bokk na ci li araam te mata moyu mooy laaj ger ndax addis ba dane yàlla rëbb na kay laaj ger ak kay joxe ger ak kay dox seen diggante ger nag mooy moom mi àtte mu laaj alal ndax ka amoon dëgg mu xañ ko dëgg jox ko ki ko jox alal ji rekk te fekk na nekkul ci dëgg de sax ki nga xam ne moom wóor na ko ne moo nekk ci dëgg te bu joxewul alal ji ñu xañ ko dëgg ga mbaa moom day tooñut waaye bu joxewul alal faaw ñu ne ko yaa tooñ ba teg ko lañuy teg ko tooñ
kooku sañ naa joxe alalam lu dagan la ci moom waaye nag kay nangu moom ma ngay nangu lu araam tax ma ngay laaj ger kon kay joxe ngir jot àqam moom ma ngay def lu dagan kay nangu nag ma ngay nangu lu araam noonu nag la mbir mi tëdde moo xam da nga koo seet ci kanam àttekat wala da nga koo seet ci kanam sëriñ bi nga xam da nga koy laaj rek mu ne la nangam la yoon wax ñoom ñëpp waaye nag loolu day buntu bu yaatoo yaatu ndax ku ñu fal ci benn poste mbaa ngay liggéey ci benn bureau mbaa daal am fenn fuñ la teg am luñ la fay liggéeyloo lañu lay fay rek ca nga war a yem waru caa jéem a yokk dara ku ñëw it te nga war koo defal dara da nga ko ko war a defal na nga ko ko war a defalee te bañ koo laaj dara bañ a séentu ci moom dara waaye boo laajee dara ci loolee nga xam ne dañu lay fay di la ko liggéeyloo da ngay laaj lu araam la li tax nag mu naqaree mooy mooy ki ñëw ci bureau bi mbaa ci poste bi mbaa fu demee noonu léeg-léeg mu nangoo neexale ci coobareem ndax bëgg daaw a jot ca la muy wut mbaa bëgg am lu ëpp la war a am ak yu demee noonu nga xam ne kon def lu araam gi mën naa feeñe ci ka ñuy jox mën naa feeñe ci kiy joxe ndax lu bare bare ñu gis ku tooñ def lu wërta def daldi gaaw joxub neexal ka nga xam ne moo ko war a teg ci yoon ndax kooko bañ koo teg ci aw yoon ñi nga xam ne itam ñoo yore mbir yi lu bare bari dañuy dëng-dëng ba nga xamee ne ku ñëw di wut si loo xam ne wóor na leen ne sa àq la dañ la ko war a jox mbaa dañ la ko war a defalit te la wóor ne moom boo ci joxewul dara rek benn doo ci jot mbaa doo ci gaaw a jot kon nag kenn ku ne ci ñoom ñaar muy ki nga xam ne moom lañu teg fi béréb di ko fay ak ki nga xam ne moo ñëw am lu wut ci tamuy jaare ca kooka kenn ku kenn ku ci ne na moytu def lu araam ci googu wàll ki wut si àqam bu mu jekki-jekki joxe dara ngir bëgg ñu gaaw koo defal te du àgg ci waxtuñ ko war a defale wala defal ko lu gën la waroon am ak yu demee noonu ka nga xam ne moo fay liggéey itam na moytu ñu xam ko ci balaa defal kenn dara rekk danga ko neexal njëkk buñ àggee nag ci nga xam ne ki ami àq bu joxewul dara du ci jot ba dana ci yeex a jot kon nag daañu ko may moom mu joxe alal ndax jot àqam joojee ci waxtu wam ca war a jote kay nangu nag moom ma ngay nangu lu araam ibnu xaraw bi day wax ne bu fekkee ne kooka da di ab àttekat ñu koy neexal muy nangu ci àtte boobu muy àtte loolu lu araam la mu ne nag bu fekkoon ne day boroom daraj joo xam ne baatam ak darajaam tax na mën naa lijjanti ci kanam gouvernement beeg ñu yore yoon loolu day daa war a def rekk ngir yàlla te bañ caa laaj dara ku muy lijjantil mbaa mu lay tilu itam na ko def rekk ngir yàlla waaye sib nañu mu cee laaj dara ci alal mbaa ñu ko ci jox dara ci alal muy nangu moom nag sib dong la wax waaye waaye daal li gën a siiw mooy boroom daraja boroom baat suñu te laaj dara ka muy topp tool ci wàllu yoon mbaa lu ko daraja mën a may daal da cay dimbalee ngir yàlla rek waaye lu mu ca laaj mu daldi araam du tee nag bu fekkee bu dee topp tool kenn dana aajowoo paas dem ca ak yeneen fere yooyu ma mën na koo laaj waaye nag du mën a laaj leneen lu ajuwut ca loola ibnu xarabi ba mu waxee lee da caa teg ne lépp loo xam ne fardu kifaaya la nga xam ne bu ca kenn taxawee mbaa ñenn ña ca des seen jaan wàcc bu ko ñëpp bokkee bàyyi ñëpp bokk am bakkaar lépp lu mel noonu rek nee na yoon du bañ am ku ko def ñu fay ko ba sax jiite wala defare diggante nit ñi nit ki àtte yooyu yépp manes na koo def ñu koy fay moom may def loola al ustaaz abu bakar dane bu ñu nee lépp luy fardu kifaaya ku ko def sañ nga caa laaj pay bu fekkee ne ci baytimaal lañ koy fay day moom amul werante ne dara nekku ca bu dee am wuute kay wuute baa ngi nekk ci muy def loo xam ne fardu kifaaya la ñu ko cay fay te jëmmi jën nit wala am mbooloo ñoo koy fay waaye pay ga bàyyikowul ci baytimaal boobaa day dañ am wuute waaye bu fekkee ne ci baytimaal lañ koy faye moom ñépp doog nañ ci ne sañes na ko moo xam kookee day ku woomal moo xam day ku ñàkk ndegam la muy def fardu kifaaya la te ci baytimaal lañ koy faye rek kees gi julli ñépp bokk dara nekku ca ibnu xajar wax na ca sharab buxaari yi ne tabari yi day nee na li ëpp ci mbooloo mi maase nañ ci ne kii àtte mënees na koy fay ndax li ci ëpp ku féetewoo àtte doo mën a taxaw ci sa soxlay bopp mu daanee ne waaye nag am na ñu baax de ca ñu jiitu woon ñu wax ne bu ñu sañoon kii àtte da koy def rek ngir yàlla teñ bañ ko caa fay dara nga xam ne ñoom sib nañu daal mu cay fayu dara ndax dañoo bëgg mu mel ni ab yonante nga xam ne day jot li rek jële ci yàlla jëme ci xeet wa te kenn du ko ca fay dara bu ñu sañoon nee nañu koy àtte it du ca fayu dara abubakar dane kii àtte moom mu laaj pay ñu koy fay ci àtte ba boroom xam-xam yépp maase nañ ci la dale ca saxaaba ya ak ña toppoon ci seen gannaaw te it ñu dégg fiq ci mboolem dëkk yu mag yi loolu lañu wax daanaka xawma ci genn wuute mu ne aw nitu nit wax nañ ko yoo xam ne masroq ca la bokk gisuma kenn daal ku ne araamal ne kii àtte ñu koy fay ci àtte ba ndax loolaay tax kat bay gaay tax kat mu mën a féetewoo loola alxalab dane boo gisee ñu sib ki àtte di laaj pay rek mooy dañoo bëggoon mu def ngir yàlla roy ci yonante bi ndax yonante bi bi ko yàlla yónnee yàlla da ko wax ne ko nee leen li ma leen di jot li ngir yàlla bëgguma ci ngeen joxuma ci jenn alali àdduna bëgguma ngeen fayema ci dara payu yàlla rek laa ci séentu ñu bëgg na kii àtte itam def noonu séentu ci àtte ba payu yàlla rek bañ caa fayu ci àdduna loolu lekk taxade ak itam bëgg ku ci wartu dugg ci mbirum àtte bañ caa dugg wax bu ca duggee mën naa mu fexe nu mu jële alal nit ñi ci ay pexe rek loolu moo tax rek ñu wax ne sib nañ ki àtte mu cee laaj genn pay mu jàll nag moom xalab ne la am wuute kay mooy bu fekkee ne ki àtte ñaar ña muy àtte wala mbooloo ma muy àtte ñoo koy fay nga xam ne fayewuñu ko ci baytimaal waaye buñ ko dee fayee ci baytimaal moom ñëpp maase na ci dagan na xanaa rek gaay a baax lool wax sib gi nga xam ne moom nga weesu léegi te ñu leeral ko aliya daal yi nee na li ñu wax lépp kat dañ cee jublu kooka àtte dëgg teg ko ci yoon ñu ko cay fay ndekat waxuñu kooka jox ko amul dëgg-dëgg ndax rek bëgg kooka jox ko alal loolu xam nga ne mooy ger gañ weesu woon kon pay gi ñuy wax naa sañ na ko ñu koy sib rek waaye mën na ko mooy day àtte dëgg ne yàlla diglee ñu koy fay nag ci baytimaal bu fekkee ña koy àtteloo ñoo koy fay mu ama wuute te mel na ne dagan ngaa gën a wóor waaye nag atteel kenn jox ko dëgg te fekk amul dëgg ngir rek mu jox la alal loolu moom moo doon ger gañu waxoon amul kenn ko daganal loolu nag nee na moom la attekat yi dëkk ba doon def ci yooyu jamono atamu teg ci walxiyaadu billah wax ne xomar moomu dafa wax yetti way waye ko baxarul waafir te def ci li ñu wax lu soobu ma laa yelzam maanaam warlu loo xam ne warut loolu mooy raw yu gi muy araf yi nga daanele moom sañoo ko bañ yëpp da ko war a bokkle waaye nag la jiitu raw yu ba yëpp bokk moom sa coobare lay doon boo ko warloo warlu warut ndax fee dane xusoo saa fee mu ne nusoo saa fee mu ne fusoo saa saa ju mujj nga xam ne mooy saat moom sañu koo bañ waaye nag soo soo soo loolu mu def yëpp bokk ay daaneel moom jëkk saa bi ci mujj kooku bu ko neexoon bañ koy def ba noppi te mu warlu ko nag ci yëpp mel noonu loolu moo tudd lu soow ma laayil sam kooku daa waxoon ne attikati sunu jamono ji daal moom dañoo soppi ku far ay sàcc ca dëgg-dëgg moom doo wax naa kee bàyyi kee ñoom ñëpp la dañoo soppi ko rek di ay sàcc dañoo jàpp ne ñoom lekk alali jirim awit mel ne dañoo gis fu yàlla yaxal mbaa yonante bi yaxal ne loolu daa dagan moom daal ayu lu ñu sax lekk alali jirim mel nañ caa gis ab yax bu wér a wér li ci de li ci gën doy waar mooy nee na buñ doon nuyonteeg yow dañu ñoo nocciwaale sab jaaro mbaa cop cop bay nekk ci kaw jaaro ba tey nekk lu foor sax buñ ko mënee far yóbbaale far ko yóbbaale